naasiri alxaqi bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokk yu tedd yi ñuy déglu ci gox yu faccantikoo ñuy leen di seet di sàkku seen ñaan te di ñaan suñu borom mu boole ñu defaral suñu zaahir ak suñu baatin ci barke yonent yàlla muhammad alayhi mu mel ni dañuy àndaat jaale njabootu sayida Maryam gépp ndax bés bii di le vingt octobre ci la faatu woon le 25 octobre It is one of the most difficult days in my life. doon yaay joo xam ne ah tabarakallah bu dee bëgg boromam kenn dabu ko ca bu dee bëgg mbokk kenn dabu ko ca bu dee yaatu kenn dabu ko ca waaw waaw you name it ñuy ñaan mbokk yi nga xam ne ñu ngi déglu yépp ñu sarax ko ñaan yàlla yéegee ko ci barzaxu sayiduna rasulillahi soppem ba alayhi salaatu wassalaam ci barzaxu sayiduna cheikh ahmada tijaani sëriñam ba radiallahu an ci barzaxu mawlaana alxaaji aliyun saaxo tabaarakallahu àndandooru dundam ba di sëriñam radiallahu tabaraka wa taala an di gërëm itamit suñu rakk yeeg suñu mag yeeg jarbaat yeeg eh, mbokk yi nga xam ne daje woon nañu tey kër ga defal ko kaamil defal ko ñaan yal na yàlla nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel na balaa ñoo tàmbali suñu tembi bi suñu sujet tey bi am na ay laaj yu fi rot xanaa ñu jël ci benn laaj yu bari la waaye bu ñu naree tontu yëpp dafa jël waxtu wi uh, Ismail Ismail can you please lower your voice I'm recording thank you ngeen baal ñu dafa am kuy laajte ni kii dafa fase soxna waxtaan ak benn mbokkam walla xaritam kooka takk soxna si muy laajte ndax loolu dana wéral dana mën a tax ndaw si sëyaat ak jëkkër ju njëkk ca defe naa moom ngeen di wax baara zaw ji te baada zawji la wala fi yàq mu dégg ne dafa am ku ko ne dagan na wala mën na nekk euh, sëy boobu dafa xaraam bi ittifaaqil ulamaa yi dafa xaraam jàngoon nañu ñaari xeetu xaraam mooy lu xaraam ci jëmmam lu mel ni sàngara walla lu xaraam ngir leneen lu mel ni lii sëy dafa dagan waaye bu amee beneen objectif bu dul bi lislaam tëral mu xaraam te loolu mooy lii sëy ngir daganalal keneen loolu daf lay yóbbu ci sëyu mutaa te sëyu mutaa dafa xaraam yonentu sallallahu alayhi wa sallam ko ci xadiis bu wér xadiis jàng ci ahmadu mi ngi ci tirmidiyu fi sunanil kubra mu ne laana allahu almuxallila walmuxallala yàlla rëbb na kiy takk soxna ngir daganalal ko jëkkëram ju njëkk jë rëbb na it jëkkër ju njëkk jañ koy lal gis nga su fekkoon ne waa ji daf ko def sax te déggowul ci ak jëkkër ju njëkk jë waaye loolu la yéene biñ ko laajee abdullah ibnu umar daf ne déedéet sëy moom du wér mukk illa an raxbatin lu dul illa nikaaxa raxbatin lu nga takk ndaw si ngir ne yow yaa ko xeme ma takk mu ne ko kunna nauddu haada sifaaxan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xadis ji mi ngi ci bayhaqi ko nettali ni seydna abdullahi ibnu umar wax na ne inna kunna nacudduhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama sifaaxan lii dee ci jamono yonent ñun njaalaw lañ ko tuddee ne wala makatha sana mu ne ci njaaloo lañ ne de buñ saxee ñaar fukki at sax ci njaalaw lañ ne ndax say ba wérut ku mel ni Abu Hanifa te ak taalibeem suufar nag ñoom ne nañ sëy ba dafay wér ndax li ñu laaj ci takk yépp ñëw na mooy walliyoo te ñoom sax sartaaluñ walliyoo Abu Hanifa te sartaalul walliyoo ca nag ay seede yépp a ngi fi waaye li wér mooy li nga xam ne moom la texte yi wax li wér li mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi gën a bari wax te saxaaba yu bari wax ko ku mel ni sayidna omar sayidna uthman sayidna abdullah ibnu omar sayidna ali ibnu abi talib sayidna abdullah ibnu mas'ud sayidna abdullah abbas sayidna abdullah ibnu abbas ñoom ñépp loolu lañ wax seeni taalibe it ku mel ni imaam alxasanul basriyu imaam annaxaaciyu imaam qataadatu imaam laythu imaam thawriyu imaam abdullahi ibnu mubaarak loolu la ñu wax fokk am koo xam ne moo koy takk te xemmem mooy tax mu takk ko te bu ko mën a dagan kële su ko waaji fasee te sequt moom dara ndax yonent bi sallallahu waxoon na ndaw sa ne ko xatta taduqi asilatahu feek ñamuloo lem waaji waaji it ñam sa lem ngi doo mën a dellu ca kële bu ngeen tasee sax kon nag wallahu tabaraka wa taala aalamu am na beneen laaj sax bu gàtt waaye waxtu waa ngi dem waaye naqadiwu la tontu mooy kii dafay laaj ndax koo xam ne mi ngi jeñante ak sobe maanaam am na lu mu yëg ne mi ngi bëgg a génn ci moom ndem saw la ndem leneen la waaye téye na ko nag ci biir julleem ba génnut ndax julleem baax na boroom xam-xam yi am nañ ci wuute waaye li wér mooy julli ga baax na lu tax ñu jàpp ne julli ga baaxut mooy li yonent bi wax ne laa solaata bi xadrati taami déet ak julli fekk ñama ngi teew bu ñu tegee ñam mu ne buñ julli nañ lekk bu pare mu ne wala wa huwa yudaafiuhu l axbathaani bum ko defit fekk ñaari woyu sobe yaa ngi jéññenteeg moom xam nga li muy firi mooy bëgg sip na nga def ko nde boo julli woon soog a lekkit julli ga dafay wér waaye lu tax ñu sib ko mooy pësi pësi buy julli xel ma nekk ca lekk ga te lekk nag sa xel ne ci julli moo gën di julli sa xel nekk ci lekk lu dul nag waxtu yu war a romb kon liñ ci xamee mooy dañoo tere nit ki mu jeññente ak sobe waaye du yàq julli ga nde lekk soog a julli moo gën waaye ñàkk lekk julli bu dee sax sa xelan ci julli ga du tax julli ga yàqu du yàq julli ga bu fekkee dara génnut bu dara génnee nekk xam ngeen ne njàpp la dafay toj te bu njàpp tojee julli yàqu xam naa très rapidement la ñuy dugg ci mawduu tey bi te mooy aqsaamu mawduaati lfiqhi l islaami fiqhu mi ñuy jàngandoo ak yéen lanay ay topic yi muy jàngale sujet yi nga xam ne ñoom la fiqhu di jàngale bu ñu xoolee mawduaatul fiq danañ gis ne ñaari sujet principal la fiq xam muy qismul ibadat ak qismul muamalat jaamu yàlla ak jëflante jaamu yàlla ak jëflante ñaar yi dong la fiqhu di jàngale te duñ dong nag <laughs> bu ñu xoolee téere fuqahaa yi bil istiqraa yi danañ gis ne mabaaxis qismul ibaadaat ak mabaaxis qismul muamalaat la ñu séddale fiq bu ñu xoolee mabaaxis qismul ibaadaat muy jaamu yàlla yi dinañ gis ne la gën a am solo ca lañ ca dëxëñ mooy li ñuy tuddee ab tahaara daanaka téere fiq yépp ci lay tàmbalee muy laab bu ko defee ñu cay gëstu ndox yi ndox yi mën a jàppeeg yi ñu mënta jàppee ndox yi mën a setal sobeeg yi ko mënta setal ak sobeeg yi nan la lanay sobee ak lan moo dut sobe ak sobe bu nee ci yére mbaa mu ne ci yaram mbaa mu ne ci barab bi ñuy jullee nuñ koy setale ak njàpp ak sangu farata ak tiim ak mbërëk ak nifaas loolu yépp mu ngi dugg ci tahaara ñaareel ba mooy asalaatu ak ya ci aju julli koor ak ya ci aju mbiru néew yile ak ya ca aju bu fi néew jógee balaa mu fay jógee lan lañu ñu war a def bu fi jógee lu jëm ci sang geeg sàng geeg jullee geeg suul gi jàkka yi ak la ca aju ak i ngëneelam maanaam daal <clears throat> mën ngaa wax numéro one mooy làpp numéro deux mooy julli numéro trois mooy sa zakat numéro quatre mooy koor numéro cinq mooy litikaaf mooy sax ci jàkk ji ak charte ya mu àndat numéro cinq waaw numéro six mooy aljanais li aju ci néew numéro sept aj ak umra numéro huit jàkk yi ngëneel yi ñu am ak seeni atte numéro neuf al aymaanu wa nuzuur te mooy ngëñ yi ak nisir yi numéro dix al jihaadu fi sabilillahi ak i atteem numéro onze al atimatu wal ashribatu lekk yeeg naan yi yi ci sharia daganal ak yim ci daganul ak nim ko digle ak ya ca aju numéro douze as soydu wa dhabaixu rëbbu rëbbu ak ay atem rendi ak i atem yooyu daal mooy sujet principal yi nga xam ne téere fiqhu yi danañ ko jottali ko ci wàllu ibadat ci wàllu jaamu yàlla yi bu ko defee xismul muamalaat côté jëflante bi sujet yi ci ëpp importance ci téere fiqhu yi di nga fekk numéro un muy azawju aziwaaju wa talaaq sëy ak passé numéro deux al uqubaatu moo xam xuduud la moo xam qisaas la moo xam taaziz la mooy li ñoo tuddee eh, eh, naka la tuddati les pénalités walla le peines dégg nga ci maanaam lépp loo xam dafa aju ci wàllu euh, mbugal koo xam ne dafa def lu mu warta def numéro 3 al buyu' mooy wàllu njaay ak jënd les ventes numéro 4 mooy al qard mooy li ñoo tuddee prêt lebak ya ci aju numéro 5 ar rahn mooy li ñoo tuddee tayle jënd dara mënoo goo koo fay nga tayle fa dara ba ba nga koy fay nga daal di ko jël numéro 6 ak 7 mooy almusaaqaatu wal muzaaraatu nandalante ak bayante moom ngeen di tuddee contrat eh, naka la tuddati d'irrigation mu jëm ci wàllu eh, agriculture dégg nga wala waaw numéro al ijaaratu te moo jëm ci wàllu baay ak luwaas ak salaire yi le wala alxawaalatu euh, mu jëm ci contrat d'exploitation agricole wala ashufaatu muy li ngeen tuddee préemption ak euh, li ñoo tuddee alwakalatu numéro onze nga mooy mbubu mi la charia solal nga summi ko jox ko keneen mu wuutu la ca lu mel ni waliyu baay moo war a maye doom waaye mën naa jël cër ba jox ko keneen muy wakiilam ak ci mbir yu bari yu dul yooyu ci wàllu jëflante yi numéro 12 li ñu tuddee al aariyatu ngeen koy tuddee peut-être emprunt muy ak ab wala waaw nit abal la dara numéro 13 al wadiatu mooy ndénkaane numéro 14 mooy al rasbu mooy fëkk nit bu fëkkee yëfu jàmbur luy atte ba ak numéro 15 al laqiitu muy wàllu por boo foree dara yi la nay atte ya numéro 16 al kafalatu moom ngeen tuddee garantie moo xam ci côté jëflante nit ak nit la walla jëflante entre groupe wala jëflante nit ak euh, société wala yu mel noonu numéro 17 al jaalatu jahalatu moom la ñuy tuddee iltisaamu iwadin maalumin ala amalin euh, mën nañ koo tuddee euh, récompense waaw jaala euh, numéro 18 asharikatu waaw nit yu booloo le groupe yu booloo Euh, di liggéey dégg nga de numéro 19 alqadaa muy li jëm ci wàllu euh, justice wàllu atte walla al awqaaf numéro 20 muy euh, waqf mooy nit ki mën na jël dara muy kër mu daal di ko jënd ne lii def naa ko waqf pour képp koo xam ne jullit la ñëw ci dëkk bi dëkk fi ba ba muy am fu mu mën a dëkk la lay attee yi nga xam ne ñoo nekk ci loolu loolu euh, wàllu muamalaat qismul muamalaat ci fiqhu euh, moo koy jottali ko numéro 21 muy alhibatu mooy may wala don numéro 22 mooy al xajru wala xijru al mooy mooy naka ngeen koy tuddeeti euh, kiir wala waaw dégg nga c'est-à-dire euh, interdit wala non autorisé c'est-à-dire que nit kii mën naa moom alalam ba pare ñu tere ko koo jëfandikoo ngir ay yëf benn âge mooy tax du ko mën a duñ ko bàyyee alal ji mën naa mu yàqu ko walla xelam wala sax dafa yoreel nit ñi bor tax ñu jël alal ji hypothéqué ko du ko mën a jëfandikoo tànk fayul bor yi ak yu jëm ci loolu loolu la ñuy tuddee xiir ci fiqhu numéro 23 ak 24 muy alwasiyatu mooy li ñuy tuddee testament kii gaañu alfaraidu 24 bi mooy eh, wàllu ndono ku fi jógee les successions yii ci eh, gàttal mooy sujet yi nga xam ne ñoo ëpp ci li fiqhu di jëfandikoo mu mel ni ñu ngi bëgg am Euh, vingt minutes am nañu ko euh, bu ko defee dañuy teg suñu baaraam foofu ba ëllëg ñu waxtaanee taqale yi nga xam ne ñoo nekk diggante al ibadat ak al muamalat bu ñu waxee ne lii ci jàmm yàlla rek la aju nan lañ koy xamee lii ci muamalaat rek la aju ci jëflante rek la aju nan lañ koy xamee ba defee Euh, ñu nekk on the same page ñu ngi ñaan suñu borom lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci darsu yile moom rek mu tax daal te mu nangul ñu ko ca nam toll te boole ñu ñun ak yéen yépp ci ñi nga xam ne danañ taxaw kana ca kanamam bokk ci ñi nga xam ne du ñu yëg tàngaayu bés penc boole ñu it ci ñi nga xam ne ñoo ngi yonantu sallallahu alayhi wa ak saxaabaam ak njabootam yu baax ya saxaabaam yi njabootam yu baax ya ñooy dëkk fi ala illiyiina vi maqaadi sidqin inda malikin muqtadirin irrahman again maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal suñu yaay jool joojule sayda Maryam eh, ci seen ñaan yu baax yi le rawatina guddi ajuma gile hada salaam aleykum